fii biir Sénégal ak bitim réew dama bëgg ñëpp ànd ne Macky Sall na bàyyi Cheikh Omar Diagne mu dellu ci njabootam ñi ko ngemb ñi ko ngemb mooy ñi nga xam ne ndax li ma bëgg wax mooy bu ñu nee Cheikh Omar Diagne dañ koo jàpp parce que dafa wax lu mu waroon wax ay tarixa waxuñu dëgg Cheikh Omar Diagne taxawaay bi mu am contre franc-maçon ak homosexualité moo ko andil lii ko dal nii ba tey ñu xañ ko njabootam lu mat ñaari weer ak lu tegu yii mooy andi fitna ci dëkk parce que jamono jooju ay nit ñu sàcc xaalisu réew mi barki démb dégg ngeen ak géwélam nga xam ne riiti ak xalam lañ ko xamee woon tey mi ngi yor ay milliards denc ko ci ay chambre ñu koy sàcc te OFNAC waxul CENTIF waxul procureur waxul kenn waxul parce que géwélu Macky Sall la est-ce que loolu jaadu na ñu jàpp koo xam ne lañ koy jiiñ mooy nee nañu dafa def publication ci page Facebook ne ko ràpp ci kaso bi parce que ñii nga xam ne ñoo yor agenda góor jigéen ñoo ko sant Macky na bàyyi doomu jàmbur mu dellu këram ñetteel bi ma bëgg a wax parce que dafa am lu ma gis dañoo am nag daje bu am solo daje bii artu la ci waaye tey lañu lancé suñu pré campagne wala suñu campagne kon dama bëgg ngeen déglu ma ci lu am solo dañoo def coalition boo xam ne diggante grande coalition wàllu Sénégal la nga xam ne président Abdoulaye wadd moo ko jiite ak suñu coalition ñun muy Yewwi Askan Wi nga xam ne xalifa Khalifa Ababacar Sall mooy président conférence des leaders li ma bëgg ngeen jàpp yéen mooy dañoo dem ba daj ba xool ba xam ni ñun ñi ñëpp nag benn problème lañu am benn noon lañu am te muy noonu Sénégal muy Firawna Sall ñu xam ni dégg leen ma rek ñu xam ni fii ñu xam ni fii rek may ma may ma may ma ñu xam ni xeetu élection yi ñu jëm muy bi ñu jóge ak bi ñu dëgmal dafa di élection yoo xam ne raw gàddu la moo tax ñoom li leen gën a soxal mooy nañu fexe ba opposition bi continuer di diviser wu bu ko defee ñu ne Ousmane Sonko moyetul PDS PDS moyetul Khalifa Khalifa moyetul PRP ñun ñu continuer di tasaaroo ñoom ñuy bennoo di ñu duma continuer tey réew mi di ci def lu neex looloo tax ñu ne nañu ànd kenn ku nekk ci ñun yor na kuréelam kenn ku ne ci ñun yor na projet am kenn ku nekk ci ñun yor na ay ambition am waaye su dee dañoo bëgg a Macky Sall continuer toog ci bopp réew mi nañu continé tasaaroo ku nekk nekk di topp sa yoon kon bu ngeen d'accord ngeen di ànd bi lu war na kon dama bëgg a bis ni ki tey. ku fi bokk yeewi na jàpp wàllu ku fi bokk wàllu na jàpp yeewi ñun ñooy ànd campagne gis campagne bi yeewi du jaar nii wàllu jaar nii campagne ndax département boo dem su dee yeewi moo fa jiitu wàlloo ngi ci gannaaw ànd ak moom ci list bi bu dee wàlloo fa jiitu yeewee ngi ci gannaaw ànd ak moom ci liste bi kon suñu destin daf yàllaa ko boole kon bis ni ki tey bu leen def xaj ak seen diggante wi ak wàllu benn liste bi la loolu nag moo tere nelaw Macky Sall lii moo tere Macky sal nelaw ñan la waay buñ ko yàq buñ ko yàq nañ ko defar nañ ko dëgëral nañ ko dooleel bu leen kenn yóbbu ba ngeen naan tey ñun PDS néeg nii kon ñun dañuy def néeg PDS wala ñun diw ak nii déedéet fii mu toll nii benn bi la ak benn objectif mooy 31 juillet heure bii bu ñu commencé wàññi ñëpp xam ni Macky Sall abal nañu ngeen may ma ngeen may ma ngeen ma ma rendre président Abdoulaye Wade dinaa ko omage hommage xam ngeen ndax lan man waa PDS yi ñu ci bëri miinu ma leen de ñi ma ñi ma àndal assemblée xam naa leen ñenn ñi ci fan yi ak suñuy waxtaan xam naa leen waaye président Abdoulaye Wade am na lu tuuti lu ma xam ci moom ndax nekk naa man mii ci jafe-jafe jël sama téléphone woo ko boobu nga Qatar ma ne ko lii de am na mu dama defal conférence de presse boo demee neen Ablaye Wade nee na ma lii wax ji jeex te bi ma ko defee noonu la wax ji jeexee kon tey dinaa ko delloo jukal te ba léegi mu doon na bank ay yoxoom ndax ay atam laaj na ko waaye mi ngi ci combat bi te dina ñëw jàpp ci combat bi kon lii li tax ma koy rendre hommage te dinaa ko def pour Abdou jouf def ko pour Senghor xam ngeen ndax lan ñooñu yëpp kenn mu see tere nit nekk candidat xañ nit candidature ci Macky sal la xewee fii Sénégal limal leen ma kenn koo xam ne Abdoulaye Wade wala Abdou juuf wala Senghor tere na ko mu nekk candidat lan moo tax ñu war a nangu Macky sal def ko da koo def ci Karim Meïssa Wade ñu seetaan mu dellu si def ko ci Khalifa Sall ñu seetaan mu fas yéene woon ko def février 2021 ci Ousmane Sonko génne ko du fi amee est-ce que loolu est-ce que loolu ñu ko bañaloon ci jamono jooju dinañ ko ko nangul tey est-ce que dinañ ko nangul Macky Sall moom nee na dina dem élection législative fii Sénégal ñi jiite PDS du ñu bokk ñi jiite taxawu Sénégal du ñu bokk ñi jiite Pastef du ñu bokk ñu ciy jiite ànd duñu bokk ñu jiite PRP duñu bokk waaye moom ñi mu àndal yëpp te ñuy jiit dinañu bokk est-ce que loolu nañ ko nam kon kon wax ji foofa la Macky tey ma bëgg a wax ak Sénégal yëpp may ma rek le Sénégal est un danger te benn danger moo am ci Sénégal mooy Macky Sall fii léegi Macky Sall ngi jiite Sénégal jàmm du am Sénégal stabilité du am Sénégal lan mooy bilan Macky ci Sénégal moo wax leen bilan Macky Sall lan la Macky delloo na gannaaw les libertés politiques tëj na ñoo xam ne defuñu ko dara ànd ceeg coxar bu kenn mësul gis tëj na euh, euh, Karim Wade tëj Khalifa Ababacar Sall doon def ay pexeem pour tëj Ousmane Sonko ma wax leen nii ma wax leen nii Barthélemy Diaz mii toog fii daje nañu fii ci place bi daaw defe naa mu ne septembre la Macky Sall def plan pour tëj usman Sonko ma ne ko Barthélemy dalal naa sa xel fii rek ñi ngi dund Macky Sall du tëj Ousmane Sonko su ko Ousmane Sonko téeméeri Macky Sall téeméeri Macky Sall ak juge ak administration ak police ak gendarmerie am mënuñu yoo tëj kaso waaye ma wax leen tamit ma dellu wax leen tamit li ma leen wax am na solo de déglu ma dama ne Barthélémy Diaz nii une minute rek déglu leen ma. dama merci merci may leen une minute rek balaa muy lëndëm ñu tënk affaire bi. dama leen wax Barthélemy Diaz mii xam ngeen luy pexe Macky ci moom. keroog ni ñu génn mobilisé wu moo tax ñu tiit dàq affaire bi. may yégal leen ni xam ngeen lu ñu nar condamné ko avec sursis pour nangu mairie Dakar ci loxoom ma ne la Barthélemy mairie Dakar bu soobee yàlla juróomi at yi di ñëw maire mairie Dakar Barthélemy Toye Dias de bis bu ne day nangu mairie Dakar ñu nangu pale bi ci moom amul lu ñuy nangu lan mooy lan mooy lan mooy bilan Macky Sall gannaaw tëj ak complot ak sàcc alalu réew mi Cheikh Tidiane Dièye wax na ko léegi Macky Sall lan la promettroon Sénégalais ci corruption fan lañu ñu ci corruption tey ci Sénégal xaalisu réew mi yëpp mi ngi seen i coffre fort gis nga bisu manifestation amatee ba ngeen dajji seen i kër. ay milliards ngeen fay fekk ay milliards yi milliards ci yu jëlee ci keesu état ndigal gaa ngi ñëw nee nañ ma ñu terminé nee leen ma rek ma terminé lan mooy bilan Macky Sall mooy suñu pétrole ak suñu gaz Macky Sall ak rakkam sàcc nañu ko jaay ko ci am anam goo xam ne Sénégal daanaka amu ci dara bind naa ci téere tey la gën a actuel te mi ngi continuer di jaay pétrole bi ak gaz bi ak zircon bi loolu mooy bilan ci Sall lan mooy bilan Macky Sall mooy hôpital bu baax amul Sénégal suñuy doom a ngi lakk ci biir hôpitaux yi Macky Sall yëgalu ko yaramam moom jàpp na ni lépp xaalis la fu ma dem rek naa joxe xaalis wax ji jeex na. école publique amatul Sénégal est-ce que xam ngeen ni jamono jooju te jii may wax ak yéen fële ci kanam RTS dem na lebi 33 milliards pour ne dafay tabax building building 33 milliards bu mu leb ak banque boo xam ne rakkam moo ko lancé woon muy banque de Dakar pour ñu tabax 33 milliards bi ci boobu jamono hôpital bu baax amul Sénégal. loolu mooy bilan Macky Sall Macky Sall faalewu leen am ngeen liggéey wala amu ko du yoonu Macky Sall yéen a ngi faju am déet yoonam newu ci yéen a ngi am problème ñi ngi leen di ci mbedd bi yoonam newu ci école bi tëj na yoonam newu ci Macky Sall moom dong ak njabootam ak géwélam la tam moo tax lii nii suñ ko bàyyee mu romb lii nii suñ ko nangulee Macky nañu xam ni am nañu ab Firawna boo xam ne 40 ans yi di ñëw moo fi toog ba dootul mun a dox may wax tamit ne waa Bennoo Bokk Yaakaar saa yëpp dégg ñu dañuy menacé Bennoo Bokk Yaakaar yem leen duñu seen morom xajul ak yéen Bennoo Bokk Yaakaar te nag dégg leen ma baax seen wax yëpp. seen wax yëpp mooy l'état n'a qu'à prendre ses responsabilités ñoom ñooñu où sont-ils s'ils sont garçons nañu génn dañ ne woon dañuy def contre manifestation arrêté ñu muus sax muus bu maraw bés sax doo ko gis ci tali bi ñeneen nañu ñuy yaakaar alkaati yi ñoom la yaakaar balaa may dee ñu dem génnee seen relique politique yëpp ay Moustapha Niass nga xam ne toute saa vie il a sucé le sang du peuple ay zumbi politique Idrissa Seck nga xam ne zumbi la kenn xamatul fu mu ne. ay Aminata Mbengue Ndiaye yéen ñii balaa ngeen di dund balaa ngeen di judd yéen ñi nekk fii Aminata Mbengue Ndiaye ak Moustapha Niass ñi ngi doon dundee état Sénégal ba tey ngeen toll ni ñi ngi dundee état Sénégal dañuy dem bay doxee békki dañuy dundee état Sénégal ñooñu tey il ne représente aucun avenir pour le pays il ne représente aucun espoir pour le pays suñu dese woon ci ngor dañuy retraité dem toog yor seeni i damay réew mi ndax lu ne am nañ ko ci réew mi ñooñu tey ñoo génn naan dañuy menacé dama ne jàmm la ñu waaye jàmm ñaara koy dox ñi ko séq Macky Sall naam fekk gi ne ci moom ma koy wax na suñu papa suñu yaay yi toog ci kër gi parce que léeg dañ leen di nax soo waxee ne waa ji dafa yaru mii kër xam nga mii kër gis mu dem ci télé yi di saaga Macky Sall la ko jox xaalis na ko demal saaga Ousmane Sonko bu paree mu recevoir ko palais moom mooy recevoir saagakat palais de la République moom Macky Sall ñun de kenn mësuñoo dégg ñu saaga waaye suñu fulla dinañ wax ba mu mat te lu ñu wax loolu la ñu gëm kon may wax sénégalais yi tey le Sénégal est en danger te benn danger moom la am mooy Macky Sall lan mooy bilan Macky Sall lu ñu musul xam Sénégal tey ngay gis Sénégal ku jóg taxaw saaga nit ci waasoom ci ethnie bu mu bokk ci région bu mu bokk tey ngay gis ku dem télé wala dem rajo wala dem site internet saaga nit dugg ci vie privée am saaga ndeyam saaga baayam ñuy dund ak ñu dul dund tey ci Macky Sall la amee musul am Sénégal lan moo raw loolu ci violence te ñu koy def ñëpp mënoon nañ ko régler ci benn seconde mënoon nañ leen ci benn seconde musu leen musu jox digal ne leen attaqué leen loolu mooy bilan Macky Sall waxu waxu ethnie waxu ethnie waxu tarixa waxu diine Senghor dem na ba jóge fi musul am senegal Abdou Diouf dem ne ba jóge fi musul am Abdoulaye Wade dem na ba jóge fi musul am waaye tey gis ngeen fi Sénégal toll mënuñoo am président bu yées Macky Sall fii ci Sénégal moo tax Macky Sall moom mooy des ci réew mi ñu ñu jóge fi wala ñu ñu toog fi moom mu jóge fi waaye mënatul nekk kon may wax tuuti it ndigal gi mooy mujj xaar leen rek may wax tuuti nag ci administration ak justice administration ak justice wata wat réew mi moomu leen ko de ku jàpp ni nee nañ la monsieur le juge solal la ab tuus bu xonk jox la xaalis bu bëri jox la ay woto nga bëgg a taal réew bi yow la ñuy taal loolu dina jeex Sénégal de conseil constitutionnel juróom ñaari nit moomu leen nit ñi bu leen ñu fontoo juróom-ñaari nit war a taal réew mi loolu est-ce nañu koo nangu ñoo ngi woo justice nañu delloo seen xel parce que peuple bii moom moom mooy souveraineté moo voté loi yi à l'Assemblée nationale quand le peuple dira non et il a déjà dit non ku taxaw ci kanam peuple peuple jaar sa kaw kenn mënu ci dara may wax tam waa force de défense et de sécurité yéen ñële toog na le bu leen seen i kilifa général Moussa Fall bu leen ko topp parce que intérêt boppam moo tax lu mu leen war a jox ay ndigal yu ngeen warul top ci réew mi ngeen dëkk tey intellectuel ngeen vous avez fait les banques vous avez été à l'université xam ngeen ni Macky Sall li mu leen defloo du dëkk xam ngeen ko kon buñ leen yebal naan len dem leen mate dem leen dóor dem leen torturer ay nit du ngeen ay bàyyi ma te lu métti ci réew mi yéen la gën a métti su ngeen liggéey ba wàcc da ngeen dem seen kër léeg-léeg dépense bu ngeen jox seen jabar sax du ngeen ko am kon bu ñu leen transformé en des objets de répression bañ leen noonu bu leen ko nangu quand un ordre manifestement illégal il faut désobéir loolu la yoon wax commissaire yàgg ak général Moussa Fall nee ngeen yeneen ñuy surveiller ñu ngi leen di surveiller ñu nit ci dëkk bi ngeen dëkk ci dëkk bi ngeen dëkk ni ñu amee njaboot ngeen amee njaboot yéen a ngi surveiller ñu ngi leen di surveiller su ngeen ñu menacer ñu menacer leen parce que nag dafa doyaat ah. kon li ma bëgg a wax ci gàttal mooy Yewwi Askan Wi bu listam bokkul ci élection yi Macky Sall du bokk ci élection bu bokkul ci élection yi Macky Sall du bokk élection yi te désormais nag li ma leen di wax ay pour ay dent pour dent bu leen njëkk a dóore bu leen njëkk kenn bu leen saaga kenn waaye leen dóor xam nga la loi xam nga lu mu wax loi bii bi ñu voté ak téere yi ñu gëm xam nga lu mu wax dafa ne buñ la dóoree booy fayu na nga fayu luy tolloog liñ la dóor waaye dama leen ne buñ leen dóoree da ngay ni fayu ba bis bu leen ko defee dóor am kon à partir d'aujourd'hui dama bëgg mu doon une mobilisation permanente Macky Sall son notre pied jàmm dootu ko am fii seize mois di ñëw Macky Sall duñ ko may jàmm fu mu génn nañ ko fa fekk fu mu dem na ngeen ko yooxoo parce que dafa jar yooxoo matul président il est illégitime Benno Bokk Yaakaar gannaaw force de défense et de sécurité ay nervi lañu yaakaar nervi ban nervi moomu la ñëw attaqué lii te nervi yëpp nag maa ngi leen di mettre en garde ndax xam nañ fu ñu dëkk xam nañ fu ñu dëkk xam nañ ñoom ñooy ñan nervi bi yëpp nag recensé nañ leen nervi fi attaqué boobu lay gën a attaqué ma daaneel nag wax leen nii nee nañu am nañu infiltré suñu manifestation bii ñu ngi wax naan ndigal bi mooy bu ñu baree fii dem palais demuñu palais amuñu benn soxla ci palais ndax bu dee ci fa nekk buqat na buqat boo xam ne bu ñu nee manifestation mu daw ci Macron laqatu jarul ñu fay dem lu am après manifestation bi may jël opinion bi yëpp à témoin jógewul ci ñun bu manifestation bi jeexee kenn ku ne fa nga ne na fa ñibbi tranquillement parce que xeex bi day tàmbali kese ah te ñu Macky Sall ci Sénégal 16 mois yi ko dese si nguur gi bu ko bëggee yeggali ci jàmm na respecté Sénégalais ndigal gi mooy liste Yewwi Askan Wi ànd ak liste wàllu Sénégal dañuy ànd ci élection bi et au 31 juillet au 31 juillet Macky Sall bu amee cinquante députés assemblée nationale record lay doon bu ñu génnee ci loolu nañu xam ni enjeu bi du rek dem jël assemblée nationale ndax buñ ko jëlee coow li dina bëri de ndax commission d' enquête euh, d' enquête parlementaire yi la takarnaas yi sàcc pétrole bi sàcc suuf si sàcc alal bi sàcc budget bi yëpp dina leer. waaye ñaareelu enjeu bu am solo bi xam ngeen lan la xam ngeen la donte loolu soxaluñu parce que constitution Sénégal fi mu wuteeg bo bo bo bo les maîtres de Macky Sall. mooy soo demoon France c'est le premier ministre qui définit la politique de la nation fii nag dañ ne c'est le président qui définit la politique de la nation mais li leer ba leer mooy suñu gagné assemblée nationale coalition wàllu yeewi ñooy former gouvernement daal di commencer redresser Sénégal avant même 2024 te bu boobaa nag te bu boobaa nag li ma jëm mooy Macky Sall dina takk ay kaakaam ñi bi ñi bi ñi bi mel noonu kon bu ñu caaxaanee lii bu ñu nangu la forfaiture du conseil constitutionnel Antoine Diome du moo wax ak moom parce que ab poussin bu immature la ñu teg ko fi dooru est-ce que pare ngeen pour combat boobu lan la leen combat boobu jaral lan la leen jaral laa bëgg lan la leen jaral kon bis ni ki tey restez à l'écoute parce que dinañ leen jox ay instructions yu leer yu limpide parce que mbir mi jeexagul bu dee dem nañu ba gis ni nag nee nañu liste nationale Yewwi Askan Wi du bokk ci élection yi fii Sénégal élection du fi am wala wala suy am dégg ngeen ma wax ne wala suy am fépp fu Benno Bokk Yaakaar génn ne day dem wote ji def leen ak ñoom noonu wax laa moom moom daal li nga xamante ne moom moo di affilée bu donc dañ leen di wax rek chers internautes restez connectés. am ma leen di wax rek ni que restez connecté euh, léegi léegi rek dinañu lancer beneen live pour euh, ni moom moo di le président Ousmane